Thiam numéro 2 ndeysaan Médou Baye li ñëpp bokk dañ koy séedee ñun Balla rek moo ñu ñor barki si Ibra bu ñu leen doon Prince pour fa tëj daal Balla ñun yow lañ bëgg ñun yow lañ bëgg yàlla yàlla xoolee mara dafa ñëw mais kenn xaju fi ñoom Sa Thiès ñu ngi fi grand liiru jaar gis na ko fi ak mbëru géej yëpp ñoom Pathé tout le mais tey Marème lii tey lu xew ba tey nit ñi wuy si la combat bi la douze incha allah soreetul ñu gis macha allah nga nekk ci forme yaa ngi ñax yaa ngi nekk en forme macha allah liir na la macha allah jërëjëf macha allah tey lay wax askan bi waa Guédiawaye ak ñi ma ñooy supporters yi. waaw damay wax salaamaaleykum damay nuyu ñëpp di wax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di gërëm waa Guédiawaye bu baax a baax baax a baax. kii tëgg la ko koy yéen di gërëm waa géejawaay bu baax a baax di wax na ñun am ñu lu dul que lii boo ko gisee affaire xaw a xat ni sa xër la rek comprendre nga mais bu ñu sañoon ñëpp dañuy ñëw si xam nga ñëpp dañuy ñëw si teggin ñëpp dañuy ñëw te débordé du am dara du am mais gars yi xër la rek mm-hmm. di jégalu ñëpp nag xam nga di jégalu ñëpp waaw di sant ñëpp nag xam nga di gërëm ñi nga xamante ne nii ñoo fi teew yéen presse bi yëpp xam nga di gërëm journaliste yëpp di gërëm suñu grand liiru jaan bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne moom monument géejawaay la te taxawaayam biir géejawaay ku ne gis na ko mm-hmm. comprendre nga liiru ñi ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm suñu mbok mbër yi fi teew yëpp ku si mel ni njaga doole xam nga ku si mel ni Sa Thiandoum 2 ak ñi fi teew ñëpp ak ñi bëggoon a ñëw te ñëwuñu tamit ñëpp ñëw sax parce que bu kenn ñëwee rek mel na ni ñëpp ñëw nañ ñun géejawaay benn bopp la bu kenn teewalee rek mel na ni ñëpp teew nañ kon loolu amuñu lenn loo xamante ne dañuy tudd diw ñëw na wala di ñëwul parce que bu ma gisee kenn man gis naa ñëpp waaw loolu la quoi. waaw tey avant tout dana gis t-shirt bi sol. waaw nga bind ay hommage ay ay photo yu ma gis yu bëri macha allah. waaw tey ñii xamante ne ñoo ñoo ñoo fi ñoo fi ñoo fi jógee ñan lañu. waaw ñi fi jógee nii xam nga su ma su may jegewaale lan dafa am ñoo xamante ne nii maanaam ñii kii su ma jarbaat la muy Pape. Ibou Sadio xam nga ak suma grand Cheikh Thiam ak Diouf suma doomu nday ku ne xamee ma ko comprendre nga ak Seckane suma grand bi nga xamante ne dafa génn àdduna démb waaw ma koy ma koy ma koy métitlu di ko xam nga rek masawu seen waa famille quoi parce que àdduna noonu la tey yàlla suñu borom bi moo ñu moom moom moo ñu indi moom moo ñuy jëlaat bu ñuy indi lu tàggoo bu ñuy jël lu tàggoo kon ni ñu koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xaaree àjjana ak ñëpp ñu fa nekk. Uh-huh. waaw tey combat la douze bi lañ jëm. ñu wax si combat yooyu mbéy guy gi. nga jógee ki xamante ba ñëpp ni sox da lay mooy mbéy guy gi jógee si armée. Hmm. tey gars yi naan promesse yi bokkul. mais tey le douze. looy confier sa supporter ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay sitaan boobu ba léegi. Hmm. yaa ngi entraîné. Hmm. am doole ju wóor macha allah. mais tey mbéy guy gi tey loo koy wax ak loo koy yóbbante ndax mu ngi lay dégg non mbay guy gi aw ma lu ma koy wax làmb moo ñu boole rek muy benn tàkkusaan lu douze te incha allahu rabbi li ñu moom la ñuy dem jëli du ma ko daan ko ñibbisi parce que siquma ak moom wax ju bari du ma moroomam si làmb comprendre nga keroog rek maa ngi koy wax nee naa leen man ak Sathiès dafa am benn natt boo xam ne dafa ñu dal ku génn rek ñu ne jox leen Sathiès wala jox leen Marley comprendre nga mais nag dafa nekk loo xamante ne nii ay bañkat lan moo tax bu fekkoon te ne ay yaafuusañ wala dara ku ñëw it day romb dem yoonam comprendre nga mais dafa jot nag xam nga ñu bëre ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a bëreel quoi suñuy adversaire tey bu ñu nangu woon a jël du ñu ak mbay guy gi comprendre nga mais nag mais suñu suñu suñu métier la comprendre nga suñu métier la quoi tey bu ñu toogee di xaar dimanche bu ñëw daf ñuy romb te kenn du la fekk nga toog mu ne la am gérer sa kër wala nga def lii comprendre nga moo waral tey yenn combat yi ñu koy jël ay soutien de famille lan dañoo bokk ci famille boo xamante ne dafa néew doole comprendre nga te ay responsable lan jëpp bi ñu nekkee ndaw bo léegi même burul làmb dañ doon jaayante ngir suñuy waajur kon bu ñu demee ba mun a jaayante xam nga bu dee as tuut di ko yóbbu suñu kër bu ñu gisee lu ñu a yóbbu dañ koy yóbbu loolu moo waral ma jël mbay guy. tey combat ba risque la tey. non risque kom combat bi nga jël mbay gu gi jóge sox dem si mbay gu no lool loolu dara man tey su ma demee ba war a bëreek mbay gu gi di xalaat ay risque yaakaar naa ko xam marle ku nekk non xam ne loolu du risque si moom quoi. man li ma koy laaj mooy lu tuuti rek diggante ma mbay guy gi mu ngi bëre xale boo xamante ne ñëpp xam nañ dooleem na mu toll. ci làmb dayoo te lépp lu mu jàpp gis ngeen dakoy koy moomal boppam. Marley ñu bari di ko dakkante na Marley yaa ay ci luur mhm. est-ce que ñëw dimanche confirmé loolu diggante mag mbay guy gi waaw boo gisee li waral loolu mooy man damaa mbapat te li ma mbapat yëpp wóor na su ma rakk su ma demee damay bindu luur mu bindu lese ma ne ko jëlal ma jël te noonu lay demee kon bëreeg luur jaaxalu ma comprendre nga te mbay guy gi du luur mbay guy gi nan la toll mbay guy gi tollul leen man bay guy gi bu ma demee ba war a moom ñu ne ma luur la a ah, man kon nan laa war def. ñeent lay jaay doole. dooleem si koy daane bu neexee yàlla. amul doole jaay doole. non non li may wax nee naa man si suma carrière dinaa bëree ba bàyyi bëre te mbër du ma jaay doole mbër mën na ma daan nag mais mbër du ma jaay doole voilà. ah lay fay bu baax ah? waaw waaw waaw. waaw. waaw. waaw.